réew mi nag bu fekkee ne bëgguñu ko teg ci ab valeur ak éthique ak nit am position di ko wax te yàlla rek tax kon ma xam ne réew mi jaatu ñu ñi fi nekk te ku ne mën nga joxe sa point de vue librement mm-hmm. c'est aux gens maintenant de juger c'est ça loolu rek moo ci am solo mm-hmm. mais avocat Sonko yi dugguñu si dossier bi parce que Sonko n'est pas encore entendu mm-hmm. ils ont saisi le procureur ils n'ont pas le droit duggagul. Mhm. ñun newguñu si Sonko. Mhm. parce que Sonko duggagul. maanaam mhm. ñuy lever immunité parlementaire defal ndànk de moo tax mën na la xam nga tey boo waxee complot mën naa la teggil foofu ne complot am fa xamu tax. parce que l'inviolabilité xam nga l'inviolabilité. dama la bàyyi wax inviolabilité xam nga aussi xam nga aussi. daam daam xam nga daam yow nan ngay waxee complot amul te doo wax ci fee. daam yow man fay bi nga commencé ba léegi waxoo ci fee. tu ne parles pas des faits quand on parle de viol on parle des faits. fee waxoo ci. daam man dàqoo ma yuuxu. non mais yow dàqoo ma ko de. daam man dàqoo ma mais fee waxoo ci. ah non déedéet dépassé woo ko chaque jour chaque jour ci loolu nga nekk chaque jour ci loolu nga nekk chaque jour ci loolu nga nekk ah oui déglu rek non il faut être sérieux depuis le début ci da nga def place sur la même question depuis le début depuis le début Omar Faye ah, non man xam nga ne man am naa kii dama ne nen ah, am nga la nen l'inviolabilité bi xam mooy lan moo tax tey ah, Sonko lan moo tax Sonko fu mu nekk nii procureur mënul ni ay auxiliaire am ñu dem teeku parce que l'inviolabilité jéem nañ dafa am lu ko téye. lu xamante ni dafa am doole. mooy immunité parlementaire bi. te amuñu droit di ko laal. tant que mayu ñu bi bu ñu ko fëggoon quatre cent mille fois bu ñu levéwul immunité parlementaire bi ñu ko def. ils ont essayé. et ça c' est important. beneen bi neen dama wax cause. cause. mooy coow li yëpp. li ko indi te ñu bari gis ne tey Sonko waru woon dem foofu. même bu fekkee dama ndax waaw d' accord. loolu c'est un jugement moral loolu c'est un rien à voir la procédure. loolu y' a aucun rapport. bon loolu aucun. nee ne dem ba mu dem ñu bëri gis ne par exemple waru fa woon dem. Hmm. moo indi toutes ces conséquences. Eh, fu ñu ko teg ni waru fa woon dem. ñoom ñooy dafa am El Malick. Hmm. moo yor communication Sonko. mais foofu tamit il est libre. dafa libre dalee laaw dafa nang rek dafa nang rek dafa nang rek. waru foon dem foofu teg tegoo ko ci xam-xam. bon li muy wax nii teg ko ci xam-xam waru foon dem fan ko teg. léegi xam nga xam nga nee ne. dafa am benn affaire bu mu def. moom mii def na déclaration la dañu bëgg dugal l'homosexualité ci jàngu Sénégal. ci oui. yaa ko wax. maa dama may preuve. déedéet waxuma loolu lan moo tax nga wax loolu. lan moo tax ma wax. parce que dafa bokkul ci sunu. non déedéet du loolu da nga ba ma sunu non na ma may ma wax bokkul sunu aada. ba ma laajee déedéet du loolu. Euh. li ma wax mooy. da wala wala ma yow. non dama lay wax rek. non déedéet da nga wax kon ma kon bon maintenant je suis très à l'aise. maintenant non déplacé après di nga ñëw foofu. maintenant maintenant El Malick te mu yor communication Sonko dañ ko invité si benn télé moom moo waxoon ne femme bi nga xamante ni ne moom moom saal bi dafa bokk si complot bi. noo ko je confirme. biñ ko invité ci télé boobu barki démb mu ne situation bi day évoluer situation bi évoluer nag ma dégg lu bi beneen wax bu mu wax ma jéggalu ko ne ko bal et pourtant da ko tuumal mu am grandeur ñëw ne baal maax donc ñoom bu fekkee ne wax nga lu leen arrangé ñu ne baax nga boo waxul leen arrangé ñu ne yow mi téye contre ils sont libres d'avoir cette position ils sont libres. Mmh, totalement mais que les qu'on laisse les gens dire ce qu'ils Sonko moo ne. Mm-hmm. nen na coono bi mu amee ba léegi Sonko rek a wax. Mm-hmm. dégloo guñu ko ñun nag si Sonko li mu wax. ñun ci la ñuy basé wu sukkandiku. saal bi buñ ko xamee Sonko moo ne dem na fa Sonko moo ne dinaa porter plainte wax na ko wala wax wax na ko. dès demain mais avocats vont porter plainte. Mhm. les avocats vont porter plainte contre qui. contre les maintenant bi ñu jógee ci bi non seulement Sonko n'a pas porté plainte contrairement à ce qu'il avait dit. il le mais dafa xëy ne rencontrer les femmes. Mhm. de son parti. oui mu ne baal naa Adji parce que victime la. il est totalement libre aussi baal Adji Sarr pour apaiser un peu la dama nag rek. Ah. nee na. non oh, Adji Sarr a noo mën a concevoir Sonko def déclaration wax na dama feebar. il faut ma faju mhm. ci biir faju bi mu tudd femme bi nga xamante ni mooy propriétaire bi. oui mu ne am na doom bu xamante ne am na huit mois. Mhm. heure bi da ko waroon fekk ci doomam. ñu téye ko di ñu téye ko di ñu toog ñu téye ko di ko torturer. un mois pas huit mois d'accord ñu mhm. téye ko di ko torturer. ci biir torture boobu xale bi tey mi ngi nekk situation bi nee na Aïssa kooku bi ko nit ñi déggee la lendemain ñu bëri ils étaient prêts à aller non loolu ngir yërmande bi nga xamante ni ne ñun ñi am nañ ko ci ñun ñi am nañ ko ci nga xamante ni ne mooy mooy mooy xale bi ci ci ci huit mois bi nga xamante ni ne moom la doon mm-hmm. maintenant ah, ñun li nga xamante nii ne li nga xamante nii ne nen moo am solo mooy dama bëgg ñuy dégloo ku nekk wax dañu wax test ADN mm-hmm. lu test adden lañu wax mm-hmm. ma déglu Basiru Diomaye Faye ñu invité ko ci benn rajo mu ne Sonko du def ADM ñu ne ko lan moo tax mu ne parce que mës na def don de sang <laughs> te don de sang boobu def mën nañ jël deretam c'est-à-dire que tu remets en cause la crédibilité et l'honorabilité même des médecins dans ce sens. loolu affaire waaba jiiba la li ngay def nii affaire waaba jiiba la quoi. est ADM boobu mu wax tey. ça veut tey. ñooñu boo demee ci banque de sang. mën ah, nañu jël hors sujet ñëw utiliser ko. pour suba si dans le cadre ñoom li ñuy wax ne complot. ñu ne Sonko moo ko am bi. hors sujet li ngay wax ne amul benn sens avec le débat xam nga donc. ah non quand même donc xam nga donc non vraiment je suis désolé mais le niveau est très faible le niveau d'analyse. bon ce niveau d'analyse là est très faible. Omar Faye je suis désolé. mais c'est son niveau. ah oui mais c'est un niveau d'analyse trop faible. je suis très déçu par ton niveau d'analyse. maintenant dafa dàgg rek c'est-à-dire que nee na da ngay da ngay may nit ñi rek. non ñu wax te xam ne ñun waxuñu ñoom ñoo wax si si nañu wax gum foofu la ñuy yem xam nga man nee naa la fii ba abadan bu ma dugg gum dans le débat du fond. niveau je rentre damay nekk uniquement. ci sur la forme. de ce débat. Mhm. cest dire que loolu Bassirou Diomaye moo ko wax mais nen na fi ñu toll Sonko dayo bi mu am le juge d'instruction sur les quatre-vingt-quatorze milliards il n'a pas attendu à ce que son unité parlementaire soit levée il est parti là d'instruction moom moo demal boppam aujourd'hui le débat est là ça existe Ce qu'il devait faire, c'est de ne pas utiliser actuellement cette arme. C'est de montrer aux gens, tel qu'il était tout le temps avec le peuple sénégalais, à chaque fois qu'il s'agissait des situations. Mm -hmm. Ce Sonko offensif qui est là. mu ñëw taxaw xeex ñu xam ne liñ koy tuumaal bu ñu duggee ba jusqu'au fond dara amu si. mais d'accord na ci. c'est ça que les gens. tu en vends des portes ouvertes. maintenant dama dégg. ki nga xamante ni mooy avocat am muy Aïda Mbodj ñu ne ko ba xam Sonko dina dina ñëw mu ne am na yéene mais député yi nekk opposition député yi nekk opposition mhm. dañu servir de bouclier pour qu'il na sa présente pas. parce que dara leerul ci li mu def. ma xam na nag loolu. Mhm. bu mu ko def moom Sonko. d'accord li mu war a def. Mhm. mooy mu dem. ñun ñi taxaw mu xool mu xamal sénégalais yi ak képp ku taxaw ne fii ba abadan li nga xamante ni ne moom lañ may tuumaal dara amul et c'est ça son honneur d'accord aujourd'hui très bien alors euh, Pape avant may ñëw ci ci ci Dame euh, très rapidement yow tamit euh, par rapport à tout eh, sama xalaat rek laay wax bu ñu ma ko bu ñu ma ko mayee mais je trouve quand même la tournure du débat parce que aussi bu ñu jëlee ay invité ñoom ñaa ñëpp di ay éducateur public. Mhm. nekk ci télé bi ñuy dégg yenn kàddu yi euh, du ma ko rafetlu euh, mii ci daam mii ci maître El parce que aussi vraiment ay xale ñu ngi ñuy seetaan di ñuy déglu bu ñu déggee yenn kàddu yi di jug si ay kilifa yu toll ni ñoom kenn ki di enseignant kenn ki di di avocat dafay dafay doy waar donc dañ leen di ñaan rek ñu delluwaat ci principe bu débat maanaam ku nekk xalaatam rek lay wax tey maire dafa ni carrément que du dugg ci dossier bi te pourtant peut-être am na ay éléments yoo xamante ni mënoon na ci mën a dugg du ko dugg par respect ak li nga xamante ni mooy seen bâtonnier bi mm-hmm. euh, daam euh, mooy respect yenn mbir te loolu aussi au delà de ci plateau bi dafa nekk li ñuy gis ci réseaux sociaux yi mm-hmm. euh, parce que am na benn xale bu jigéen bu nekkoon TFM semaine passée maa ngi dégg mu ni dañ ko commencé di menacer de mort mm-hmm. am na aussi benn journaliste effectivement bu nekkee nag dañu bëgg jël benn mbir boo xamante ni encore une fois am na complot am na traquenard am na ko wala amu ko loolu appartiendra à la justice de le déterminer. Mm-hmm. jël loolu bëgg ko def prétexte ba bëgg jël Sénégal di ko basculer ci yenn mbir yi nañu mën a delluwaat ci sérénité parce que mënuma comprendre tey ji euh, Oumar Faye bu waxee ñu saaga ko ndey Pape Makhtar bu waxee ñu saaga ko ndey tey Cheikh Oumar bu nee Ousmane Sonko victime d'un complot ñu ni bravo li nga wax mooy xalaat mooy mm-hmm. xam-xam mm-hmm. loolu bu ñu naree réduire Sénégal ci loolu ñu ngi nekk ci loo xamante lu dangereux te loolu aussi ça ne rend may wax nga bañ si ànd. Mhm. acceptel que ni man sama xalaat laay wax kenn niwul li mu li mu voilà lii lii nga wax moom mooy dëgg delluwaat ci dossier bi rek man damay waxaat li ma waxoon léegi Ousmane Sonko gagnerait à ce que mu am procès mu dem wax ak sénégalais li fi am te aussi dëgg la bu ñuy wax waxu yàlla ñëpp dañuy naan kon question bi close la mais gis nga daam boo waree doon président de la république kenn mënu la ko teree doon mhm. boo kenn mënul fexe ba nga doon ko nañ jël exemple Soumaïla Cissé mhm. était bien parti pour devenir le président euh, fële ci Mali mhm. pourtant yàlla dafa jël bakkanam mhm. Abdoulaye Wade am na benn période ba mu découragé si la ko sénégalais yi doogaay jox confiance boobu donc war nañu mën delluwaat ci li nga xamante ne aussi mooy suñu gëm-gëm ñu ngi ci période carême am na ay chrétiens am nañ ay musulmans mais dëkk bi dëkku gëm-gëm la gëm-gëm boobu nag mooy tax ba nga xam ni tey jii say ambition lu mu baax baax baax baax ni nga yéene Sénégal lu mu rafet rafet bu ci yàlla àndul du donc Ousmane Sonko bu yàlla ànd leeg moom kenn mënu ko fexeel ba naxsal ko bu yàlla àndul ak moom ay nit bu ñu àndulee moom aussi mënuñu fexe ba nekk ba mu nekk président de la République mm-hmm. bu ñu ko xoolee ci président Macky Sall rek ñu bëri yaakaaru ñu woon day doon président mm-hmm. donc bu ñu ko xoolee foofu rek war nañu mën a delluwaat ci calme ak sérénité ñu bàyyi li nga xamante ni mooy parparloo ku nekk mën nga fax mais nañu moytu parparloo te xam ko bokk suñu mbokk la Maître El Hadji suñu mbokk la ñooy ànd ak après di waxtaan di kaf di rey di kii mais am na ñoo xamante ne malheureusement duñu comprendre yu bëri fi nañuy profité di gis ay kilifa di leen ñu koy saaga mm. te ñëpp ñu fiy toog di wax ni ay kilifa nañu am ñoo xamante am jóge ci ay famille yooyu yëpp noonu la laa bëggoon wax ci sama temps parole mm-hmm. di wax euh, que état bi nañu gën defaat sérénité mais aussi Ousmane Sonko aussi na gën woote dal mm-hmm. man leen rek laa koy reproché mooy lu mu wootewul dal mais mu leneen lu ma koy reproché na woote dal wax ñi nga xamante ni wala sax mu porte plainte parce que daam bu nekkee da ngay jël di usurper ay identité jël ay photo Ousmane Sonko di saaga nit ki yow da nga koy porter préjudice te bu nekkee yow bokkoo ci moom da nga koo def parce que ci Macky Sall nga bokk wala ci Pape nga bokk da bëgg yàq der El Hadj Diouf wala da bëgg yàq der euh, Pape Makhtar wax nañu mën a wala Ousmane Sonko wax nañu mën a porter plainte ñoom seen parti nañ jël seen responsabilité te lii nga xamante dañ ko fi commencé teg mi genre dictature boo xamante ne mm-hmm. pensée unique la mm-hmm. ñëpp lu ñu wax lu àndul ak li nga xamante ne mooy li ñu xalaat ñu bëgg la saaga ndey wala ñu naan dañ lay menacer de a na mm-hmm. lu mu def dafa ñëw am lu mu wax lu rafetul ci Petr mu jël téléphone am ne oo naa ko baalu ko ax parce que li ma ko wax waruma ko wax te dama juum te loolu foofu la nit ñi nekk ci ay débat te c'est important loolu nañu jéem a waxtaan ci sérénité ku nekk wax li nga xalaat bàyyi maintenant aux Sénégalais de juger la situation c'est important ku nekk sa ay euh, position peut-être euh, ngay ngay ngay défendre alors mu ñëw ci Dame Dame euh, gis nañ ko on va peut-être vers la levée de l'immunité